برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا أنا لو تخوت لول لول لول ci li nga xamantene mom rek mo jara xam moy xam ba bare do te jam parce que bu moy lo rek lambatu mo fay ni bu moy xam ba bare di doga jam ni ko yalla laaje lambatu moo fay ni yalla lambatu du ko daj foog naa ne nag fii Ndiaganiao dayra ji lu jar a soutenir la lu jara jappane la mbolo ko xamante bu jar la ndax ñi ngeen gis ñi yëpp seen kanam lenn rek lañ nam mooy jëm ci yàlla jaarale ko ci njàngaleeg Maolana Cheikh Ibrahima ak ñi nga xamante ne moom la tàggat bàyyi leen fi te lu muy fànq ci yoon woo xamante ne mënoon nañ ko aw mu doon loraange ci ñoom bëri lool te ay nit a ngi fi tamit topp ñu yoon woowu ñu ngi ci yoonu loraange te nu man mii sax ci laa bokk kon kenn amul seen fay kenn amul seen fay kenn amul seen ngërëm xanaa di leen bàyyi ak yàlla mu yokk seen maqal yokk seen xam-xam yokk seen doole ak seen taxawaay ci baatin ak ci zaahir ba ñii nga xamante ne ñëw nañu weeru ci yéen ngeen di leen tette yoon wu ñu namm yomb lool ci ni lañ koy awale maa ngi jégalu ci guddal gi dafa wax yàlla sax kàddu gi yeloo ma ko ndax retard bi yeloowu ma ndax ci la fay fi fek yeloowu ma ndax guddi na ba pare te nit ñi yàgg nañ tok yàgg nañ xaar assalamu alaykum wa rahmatullahi di féete ci Cheikh Maulana Cheikh Ibrahima ness amna lu ci xootal lool lool lool lool ci li nga xamantene ne moom rek moo jara xam mooy xam ba pare di door di jaam parce que bu mooyee eh, lool rek. Eh. làmbatuma fay mooy xam ba pare di doog a jaamu ñu ko yàlla laajee làmbatuma fay na te yàlla làmbatu du ko daj foog naa ne nag fii njëge ñaaw day euh, rek yi lu jar a soutenir la lu jar a jàppane la mbooloo koo xamante ni bu jar a dugg la ndax ñu ngeen gis ni yëpp seen kanam lenn rek lañ nam mooy jëm ci yàlla jaarale ko ci njàngaleeg Mawlana Cheikh Ibrahima ñi nga xamante ne moom la tàggat bàyyi nañ te lu muy sànq ci yoon woo xamante ne mënoon nañ ko aw mu doon loraange ci ñoom bëri na lool te ay nit a ngi fi tamit topp ñu yoon woowu ñu ngi ci yoon loraange xëy na man mii sax ci laa bokk kon kenn amul seen fay kenn amul seen fay kenn amul seen ngërëm xanaa di leen bàyyi ak mu yokk seen maqal yokk seen xam-xam yokk seen doole ak seen taxawa ci baatin ak ci zaayir ba ñii nga xamante ne ñëw nañu ci yéen di ngeen di leen tette yoon wu ñu namm yomb lool ci ñun lañ koy maa ngi jégalu ci guddal gi dafa wax dëgg yàlla sax kàddu gi yeloowu ma ko ndax retard bi yeloowu ma ndax kilifa yi fi fekk yeloowu ma ndax guddi ba pare te nit ñi yàgg nañ toog yàgg nañ xaar